ñëpp. xam nañu interpellé sur le cas. politique bi moom je crois que c'est un secret professionnel ku xam politique xam ni. Hmm. dafa am loo xam ni dafa xew si biir APR. te aluñu dugguñu ba si biir ba xam lu xew dëgg dëgg dëgg. Hmm. muy différence bi am entre le président Macky Sall ak le candidat Amadou Ba. Amadou Ba hmm. donc je crois que boo analyser loolu moo indi tey dislocation au sein de Benno Bokk Yaakaar. tey ñun ñu doon campagne. xam nañ ni man mi nekkoon coordinateur comité électoral il y avait un problème au sommet de hmm. mais xamuñu lan moo quel est différent ba tey le président Macky Sall jàppalu le candidat Amadou Ba kon nit ñi dañuy wax nii rek donc mais am na lu xew hmm, am na lu xew donc d'après nos nos informations l'AFP n'était pas pour l'AFP était du côté de Amadou Ba ah. le PS était aussi du côté de Amadou Ba donc hmm. je crois que c'est une chose c'est une suite logique okay. Okay. un jour viendra nag dañ xam diggante bi la moo waral. seen diggante le président Macky Sall ak le président Amadou Ba. ku nekk nag am nga ci information mais à vrai dire ñoom ñaar ñëpp kenn waxagul. Mm. te on parle que Amadou Ba est sorti de l'APR pour créer son propre parti. le président Amadou Ba effectivement. le président Amadou Ba bon toujours c' est un langage qu'on a l'habitude de parler donc man je suis. je suis membre de parti. non je dis que il a créé son parti man je membre de Benno Bokk il a créé son parti. il a créé son parti. Ah oui? donc l' information nous avons dans nos réseaux que Ba a créé son parti. mais waxagul waxagul mais bon. je crois que tant que édite bi nga xam ne moo am si biir. Hmm. entre Macky Sall. le président Macky ak Amadou Ba. tant que ñun ñu nekkoon si biir coalition bi xam nañ ni ñaar ñi jubawuñu. Hmm. parce que dem campagne ñu toog. même en réunion département en réunion au niveau départemental les gens disent que mais on ne peut rien faire tant on peut pas avoir l'aval du président en pleine campagne donc on perd une semaine cela veut dire qu'il y avait quelque chose donc vu vraiment euh, flash yi mm. xam ni amoon na lor si diggante mais pour man mm. il est temps quand même que je je parle de Amadou Ba mu prendre son son courage mm. taxaw wax réellement qu'est-ce que ça passe mu wax fan la jëm waaw man je crois que vraiment dislocation bu commencé am si biir parti bi. Mhm, waxuñu mais loolu vraiment. source la ku. Mhm. source la c'est une suite logique. effectivement mooy li nga wax léegi waaw.